waa di ay eh, ci jamonoom di ay taalibe yu mag ak seeni njaboot di nuyu ñëpp di nuyu daayira yi ni ko Pape Dramé limé mooy délégation yi nga xam ne ñëpp ñoo fi bokk ñëw ak soxna yi ñu ngi leen di nuyu bu baax bu loolu jàllee tamit ñu ngi nuyu bu baax le ministre conseiller Arona Coumba Ndoffène Diouf mi nga xam ne moo fi teewal président Macky Sall di ñaan mu jot lañ ñu ko nuyoo ab can ci lii nga xam ne ba mu jëf sosoo ba léegi nga xam ne ren diir bi mu fi nekkee yëpp at bu jot mu yabal délégation ak fuñ man di nekk mu ñëw nekk ci sunu wet te loolu wanewul lu dul rek xam ne liggéey bi liggéeyu senegal la te itam liggéeyu diine la te diine dafa am solo lool te itam mu bokk ci nga jotal lu ñu ko cant boobu di la gërëm yow tamit ndax tamit tamit yónni bi am na solo lool yow ndax fii am nga fi place bu baax te démb sax la woon ndax ku leen xam yéen seen famille boobu famille Buur Seen Kumbe Ndoofeen Jóob xam nañ bu baax a baax démb bu sëñ Touba ak fi ñu moom ak fi ko féete ak seede ya kon ñu ngi lay ndokkeel bu baax di gërëm bu baax délégation bi nga xam ne moom nga àndal ci sa wenn foofu wax nga ko le conseil El Hadji mu ngi fi ak honorable député yi ngeen àndal yëpp yi fi ñëw di gërëm it euh, ki nga xam ne mooy l' ambassadeur Cheikh Niang bi nga xam ne moo nekk ci mission bi te itam mu liggéey ci liggéey bu rafet ñu ngi koy gërëm bu baax xëy na danañ ko gën a yaatal di sant bu baax ñëpp niñ ko waxee euh, di leen xamal ne rek bis bi ni ngeen ko defee mooy dox ngeen teren ren la ci fanweer leer at ak ben te seigne Murtada tàmbali won ko yalla nako yalla yàlla doole leer ak mbollem wa keur seigne Touba yamu fa nekkal ngeen diko defé ni nii te at ak ben du fanweeri fan ak ñet wala fanweeri fanweeri waxtu ak ben ngeen diko def ci rew mo xamne mo ëpp doole ci rew yi ci anam bu nak nak bu walu khalat xalaat bu dee xam-xam walu bu walu nit tamit ak xamé ak sétlu lenn lu ci nekk daf am ciir bu reuy bu mu ci am kon su fekkante na loolu sëñ Moutala samp na ko fi te lu ko fi won bopam ngeen teye ko ba léegi ñu di leen naw bàyyi leen ngeen di ko kon dafa mel ni liggéey boobu yéen yéen a ko liggéey loolu tamit ñu ngi leen ci ndokkeel pap junj na ko ci wax xale yi xale yi ngeen xam ne lii mag ni ta samuli bam egg fi samé buñ ko won ay caaxaan samé wuñ ko won ay wax kon da ngeen wara jema gor gor bu baax yene tam ba li ngeen ci ak ñom ba waxtu woo xam na yagg wante teewul ngeen ci ak ñom di wéy ak liggéey bi lolou tamit ñi ngi ci gëreem bu baax it ñi nga xam ne ñoo fi wax walu diine mu imam khadim bu fa ñom ndax deug la ci lañ judd yaru ci ak sëñ àll yu ñoom wante diine judd ci yaru ci taxul nga mën cee jiite mën nga cee jiitu nag mais mënoo ci jiitu jiitee moom du caa génne ab juddoo la ko ciy may kon nag su ngeen fi nekkee ci taxawaay boobu ñu leen di gërëm bu baax di leen gën a di a encouragé di leen gën soññ li ci desit mooy lim ci kanam nañ ko sàmm sàmb bi mooy lii ñu am tey te ñu wóor ne du ay influence moo ko maye du ay wax du ab juddu du dara sëñ Touba dafa liggéeyal yàlla te buñ ne sëñ Touba tamit kër yëpp a ngi ci biir nañu bàyyi fu ñu waxee sëñ Touba rek ñu daal di génn leneen sëñ Touba léppam mook ñi nga xam ne li leen taxoon a jóg mooy defar ay nit rek mooy kër yi te loolu wane ngeen ko fii ndax suñ fi ñëwee duñ fa xam genn kër duñ xamee murit duñ xamee tijaan duñ xamee keneen te xam ngeen ne bés bi tamit loolu rek moo ko wund mooy bésu lislaam la loolu tamit ñu téye ko bu baax sàmm ko sàmm gi mooy fii mu toll tey boo gisee ñuy wax ne nañ ko gën a organiser nañ ko gën a jox gëddaam ñuy waa réew mi kët jox nañ ko gëdd lool ndax juróom-ñaareeli at wala juróom-ñetti at ci ren saa bu ma fi ñëwee waa département de Ndar dañu recevoir te ku ne xam na ne ñoom kenn bu doon influence doo ñëw rek la sëmm ak say sa mbëbbu daal di wax déedéet du loolu la ñuy xam ci yow sax doo ko xam ci sa bopp kon loolu suñ ko defee xam ko ci yéen at bu jot ñu toog ak ñun toogaay bu yaatu te lépp dara waralu ko dudd sëñ tubaab boo ko wonee waneen woo xam ne dugaloo ci say bopp ku ne da nga ko accepté naka noonu diine l'islam fii tamit ci Nations Unies gii nu war a jëm tey secrétaire général di Nations Unies moom tamit di ñu recevoir te bi dem ba bi bi ñuy waree ñëw le 17 te daf ñu doon war a recevoir mais biñ ñëwul dafa bàttale ay sous-secrétaire général ñu nekk ci bu toog ak ñoom ñaari yoon wax ak ñoom kon lii dafa war a moo tax bu ñuy wax ne Nations Unies conférence yañ fay def nañ koy nañ koy gën a yaatal ndax sëñ Touba nëbbutuwul sëñ tubaa amul lu muy làq sëñ Touba du local wax jën ko lépp lu ñuy def ki moom mën nañ caa génne loo xam ne àddina ñoo ko war jariñoo moo tax ren ñu tànn thème dafa waxtaane loo xam ne ñoom ñi nga xam ne yëg nañ ko muy autorité yi dañ ko rafetlu lool te lu ñuy def lu nekk dañ koy jaarale ci cadre boo xam ne diine lislaam a koy ëmb jaarale ko ci Serigne Touba ak kilifa diine yi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi mu mel ne nag loolu nañ koy gën sàmm bu baax fuñ fi dem nañ wone sunu yar li nu xam fuñ fi dem nan wane buñ wane suñu bopp wante nan wane sëñ tubaa ak ñu baax ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo tax ñu am lii bu ñu ko defee jafe-jafe du am moo tax sàmm gi weesuwut loolu rek fu mu mën di doon rek buñ fa wane suñu bopp buñ fa wane suñu xo xool suñu bopp buñ fi wutit suñu njariñul bopp mu mel ne kon loolu mooy liggéey bi yéen ay missionnaire ngeen fii ngeen nekk damay wax toujours ne ay wut xaalis indiwu leen fi dama koy wax toujours ni ma gis ngeen di ko joxe ay xaalis ni ko Pape ñoom di waxee kuy wut xaalis doo defee noonu damay wax moo tax may wax ne xaalis eh, ab jëm jumtukaay la rek wàcce du jëmukaay dafa mel ne loolu yéen xam ngeen ko bu baax moo tax toujours dañuy wax rek ne nañ gën a góor góorgóorlu liggéey muy judd léegi wax nañ ko suba ngeen wax bu soobee yàlla ñun tamit danañ fa teew te danañ ci bokk yi tamit na ngeen ko bëggee na ngeen ko wootee rek danañ ci bokk ak yéen ndax mbir mi kat kenn defalu ci kenn dara ku nekk sa yëf nu itam kenn naxul kenn nit nag kenn ku nekk sa bopp ngay bu fekkee da ngaa jubloo ndax nit pour alalamit sa bopp rek ngay nax mais nit ki lu mu def te yàlla rek tax ak sëñ bi bu boobaa loolu moom mënu ko perte benn yoon kon daal ñu gàttal ñu jéem a waaj bu ngoonee ñu ànd ak yar bu ñu demee tamit nañ ko tërale ñu respecté ko xam ne barab yi nekkul barab bu ñuy bu barabu liggéey rek la barabul diine la te barab bee ñuy demit day barab boo xam ne ku xam saal yi ñu jox te Sénégal lañ lu ko waxee ne danañ ñu jox saal bi nga xam ne mooy saal assemblée générale bi ñu ngi ci gërëm bu baax Cheikh ak Pape Gallo ak ñi nga xam ne ñoo ciy taxaw loolu it buñ koy def ku ne xam ne ñoo réew mépp yëg nañ ko kilifa yëpp yëg nañ loolu kon suñ ko bàyyee nun tamit nañ fexe ba bu nu fa yem bu fa kenn def loo xam ne loo xam ne day tax ñu ne lii ak lii ndax luñ fay def rek buñ mooy ñàkk wane suñu bopp rek sëñ tubaab moom foo ko wane rek moo tax may wax ñii di tëgg léegi yu mel nii nañ koy bàyyi xel wax naa ku dégg sëñ Fall ku baax lay ma ne ko euh, barab bëpp boo xam ne dañ fay wax sëñ Tuubaa waxuma la sax ku bokk ci Cheikh Ibra Fall waaye ku ne moom nga gëm noyyi sax daawuñ ko def ci loolu kon nag barab bii nañuy bàyyi xel yooyu waxuma ku bëgg a def looy def nag nga bañ a taafanteeloo barab yi ñi nga xam ne tamit dañuy bokk ci organisation yi nañu bàyyi xel loolu nañuy sol sel gu yiw mais melo melow woo xam ne ëllëg ci si mën nga nekk barab boo xam ne dañu la naan kii lañ gisoon foofa nga def fa loo xam ne bokkut ak li nga wane woon foofu dañ koy bàyyi xel. moo tax ñuy organiser aussi nañ leen di tànn ñu dem ñu ñu ñu teg leen muy nit ñu ñu mën a xam nit koo xam ne boo ko xoolee doo ko ragal doo tiit nit koo xam ne tamit boo ko fekkee ci barab bu ruqe. ñu di ko fa sonal wala mu defa def lu dul noonu ñu ne kii gën moom lañu gisoon bërki dem mu nekk ci ñay xàll la ko wax loolu itam nañ koy bàyyi xel bu baax fokk ñu respecté sunu bopp sunu yëpp yëpp sëñ tubaala la nañ ko ko sàmm sàmmal ko sunu bopp kon ñoo ngi leen di gërëm di ñaanal ñëpp yàlla ñu dem ba eggal ba yëf yi jeex ci jàmm yàlla na yàlla deful jàmm tàngaay bi tamit loolu rek lañ doon wax tàngaay moom tàngaayu ëllëg moo am solo kon nag lu mu gàtt gàtt yàlla nañ ko yàlla wuutal cerug ëllëg ñu ngi leen gërëm barki sëñ Touba jërë ngeen jëf di ñaanal tamit kilifa yëpp nag waaw ndax eh, yàlla moo définir li muy ñaanal li yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ku ne xam ne ne bu fekkoon ne ñaan dana doy mooy wax ne sallallahu alayhi wasallam nañ koy waxee mënoo ko boo ko doy yàlla na fi yàgg te wéddu yàlla waxewul noonu mais kilifa yi nga xam ne mooy doomi sëñ Touba yi fi nekkoon ak ñu baax ñi fi nekkoon kilifa yi diine yëpp ñoom itam dañuy soxla ñaan googu nañ leen di ñaanal yàlla dafa leen jàmm moo tax ñi ngi ñaanal sëñ Touba moom moom itam ginnaaw moom lépp kon bis bi ñu santale ko ko yàlla parce que sëñ Touba mësul santaane lenn lu dul ñu santale ko yàlla lépp lu mas a santaane pour ñu dimbale ko ca mooy sant yàlla rek mooy màggalu Touba gi leneen lu mu daan def rek te sukkandiku ci borom mësul ja ñaan dimbal kon nag lii tey bu amee nun tamit nan nan ko ñaanal yàlla yàlla yàlla dolli ko ndax lu baax du ko doyal ak ñi nga xam ne mooy kilifa diine yëpp ya nga xam ne ñoo fa nekk ñu ngi leen di gërëm bu baax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu